atte boom bu ñu boomoon fukk ak ñeenti doomu aadama ci Boffa Bayotte tàmbali na ci altine bii lu toll si fukk ak juróomi prévenu ñoo teew ci baaru tribunal bu Ziguinchor ngir rekk war a indi tontu si lu ñu leen di tuumaal ñu waroon nekk fukk ak juróom benn am kenn ku teewul mu di César Atoute Badiate procès bi nar a nekk procès bu gudd ginnaaw fukk ak juróomi prévenu yi témoins yi toll nañu si fanweer ak juróom benn Parti civile yi ñu xayma leen ci fukk ak juróom-ñaar partie civile yi la njëkk ngir rek xam nan wala si yan anam lañu ñu boomee lu toll ci fukk ak ñeenti doomu aadama mu am ci témoignage yi yu jéggi dayoo li ñu toppee prévenu yi bokk na ci association de malfaiteurs ak lii di participation au mouvement insurrectionnel laata procès bi di tàmbali avocat yi di layal prévenu yi ñaanoon nañu rek ñu ajandi lii di àtte bi li ko waral moo di ñàkk teew kenn ci seeni naatangoo mu nekk loo xamante ni attekat bi moom bañ li ni mel ginnaaw procès bi nga xamante ni tàmbali nañ ko ci altine bi dinañ ko wéyal ci talaata bi mu nar a nekk procès bu gudd ndax dina am lu toll ci ñaari ayu bés lépp ngir leeral li nga xamante ni moo di tueur yi bu amoon ci ba Bayot